chers participants à ce séminaire, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous transmettre les salutations de M. le maire Madiop mais également toute sa gratitude envers le Forum civil qui a choisi d'organiser ce séminaire de haute facture ici dans l'enceinte de la commune de Crayon, dans notre euh, salle euh, de délibération. J'ai l'honneur est l'agréable privilège ce matin de, représenter, représenter en ma qualité de de maire en charge des finances. Ce séminaire revêt un caractère très important dans un pays comme le nôtre où la fiscalité joue un rôle prépondérant dans la mobilisation et l'affectation des ressources intérieures essentielles à la bonne marche de nos collectivités territoriales. je ne voudrais pas être longue dans mon propos introductif, mais marquer à haute voix que ce séminaire de réflexion pour la mobilisation des ressources et la transparence est extrêmement opportun à tout point de vue. Ainsi, je voudrais réaffirmer aux initiateurs, organisateurs, en l'occurrence le Forum civil dirigé par M. Ibrahim représenté par le coordonnateur local, M. Babakar Sissé, nous remercions d'avoir choisi la collectivité territoriale de Grand Yoff. Vous souhaitant la bienvenue, déclarez ouverte la présente session tout en espérant vous retrouver dans d'autres sessions ou d'autres thématiques. Mesdames, Messieurs les participants, à vos titres respectifs, je vous remercie de votre attention. nous pouvons faire notre séminaire de formation à la langue de Koch, que maîtrise parfaitement mon cher Momodou, qui est formateur. Dis-le nous yéen ñëpp seen tur ak seen sant au de monsieur le maire Pamba Diop ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di remercier parce que ni ñu ko waxee mobilisation ak transparence ci ressource dafa am solo ci collectivité territoriale ñun nag amuñu feneen bugguñu feneen fu du Grand Yoff suñu dëkk yàlla séddañu ko kon nag képp koo xam ne jóg na jël tànkam loxo bugg ko dugal ci mobilisation ressources yooyu ak transparence ak it di xalaat lu ñuy jëmalee suñu commune duñu def lu sant la ci turu conseil municipal bi ci turu monsieur le maire mais aussi ci turu population de Grand Yoff yëpp donc loolu moo doon sama kàddu bu njëkk di leen nuyu di leen sant di leen remercier ci seen attention te yaakaar ne dinañ dajewaat ci yeneen séminaire en tout ñu ngi leen di ubbil suñuy bunt ak toute notre disponibilité parce que xam nañ ni li yéen li ngeen di def ak ñun li ñuy def benn la te ñun li ñuy def yéen lañ koy defal yéen nag lépp loo leen def dañu leen ci boole sant ak gërëm ak ànd ko donc Pathé loolu laa amoon ci kàddu yu néew yu yu ma jàpp ne daal lu ci baax xëy na monsieur le maire la lu ci xaw a manqué man la ci sama heure sama bopp en tout cas di leen souhaiter excellente journée di déclarer ne suñu travaux yi ubbi nañu ko ci jàmm tey ñaan yàlla mu montale ñu ko ci jàmm incha allah taala merci monsieur le coordonnateur local monsieur Cissé. transmettez nos remerciements au coordonnateur national. Merci. Merci euh, au Forum euh, civil, à son coordonnateur local, M. Babacar Sissé. Je voudrais, euh, au nom de M. le maire Pape Modiop Diop, remercier cette grande Initiative euh, pour la mobilisation et la transparence des ressources thématique extrêmement attendue dans ce qui est euh, la mobilisation des ressources, extrêmement important, comme je l'ai dit tantôt, par rapport à la commune de grand notre commune. J'ai salué et remercié tout à l'heure les initiateurs de cette belle euh, session de formation. parce qu'il est important pour nous d'avoir des ressources. Maintenant, pour tout ce qui pourrait impacter sur euh, l'amélioration de l'assiette fiscale, nous sommes preneurs et je l'ai dit, euh, cette formation est extrêmement opportune à tout point de vue. waaw dama ñëwoon représenté fii tey monsieur le maire pab Pape Madiop ci euh, session de formation bi nga xam ne ñi ko initié mooy formateur bi ñuy nuyu di saluer son coordonnateur local monsieur Babacar Cissé di nuyu le euh, président du forum civil euh, Birame Seck di wax ne mobilisation des ressources dafa am solo ci collectivité territoriale bu mel ni bu Grand Yoff ndax itamit ressources yooyu moo ñuy permet ñu fonctionner moo ñuy permettre ñu mën a investir te it mobilisation bi dafa am solo comme tamit liggéey ci transparence bi nu koy gérer aussi dafa am solo moo tax tey jii ma wax ne formation bi dafa am doublement importance sam donc euh, ñi ngi koy saluer di yaakaar ne daañu dajewaat ci yeneen session ak it yeneen thématique man nag mi fi taxawaloon tey monsieur le maire Pape Madiop dama nekk adjoint au maire en charge de des finances looloo tax mu délégué ma fi de même que le président de la commission de finances kon mairie bu ñu ko waxee sans ressource wax nañu mairie boo xam ne du mën a demal boppam du mën def lenn donc mobilisation ressource yi ak lu yokk assiette fiscale bi loolu dafa nekk importance boo xamante ni mënuñoo xam xayma bi moo tax dañuy jeexale sunu kàddu fanu ko jëkki woon rek di wax importance bi ak di saluer di sant ak di gërëm forum civil d'avoir choisi notre commune pour waxtaanee lu thème bu am solo bu mel ni mobilisation des ressources. D'abord, d'abord, je tiens à remercier donc euh, la commune de Grand-Yoff, particulièrement donc euh, le maire Madiop Diop euh, et également euh, Madame Wore Diaw, donc ici présente, qui représente aujourd'hui donc le maire de Grand-Yoff. Et également, tiens Euh, préciser encore, donc c'est notre troisième atelier, n'est-ce pas Parce que le programme a, dém a, dém a, démarré il y a deux ans de cela. Nous sommes donc euh, à la deuxième phase et nous avons eu donc à euh, former donc le comité, donc composé donc de dix membres. Et à chaque fois, donc, dans ces ateliers, nous invitons également. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous avez constaté que Nous, avons eu donc euh, une quinzaine donc, euh, de présent donc, à, ce, à cet atelier, d'autres invités, et toujours donc, dans cet objectif, n'est-ce pas, de pouvoir donc, accompagner donc, euh, l'État, accompagner également donc, les, les mairies, n'est-ce pas, dans le recouvrement, mais également dans le suivi également, donc, également des ressources, n'est-ce pas, C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, donc vous voyez également donc les mâmes ici présents, n'est-ce pas, et euh, que nous attendons également euh, pour le comité, pas, que les résultats donc qui sortiront donc également donc de, nos, de atelier donc puissent être également partagés également au niveau donc de leurs instances. Parce qu'il faut le rappeler, ceux qui sont dans le comité représentent des organisations. Et nous attendons d'eux également qu'ils puissent démultiplier également donc, ce que nous avons ou des informations donc, qui sont, euh, euh qu'ils ont eues ici. Donc, euh, également, donc, par rapport au plan qui sera déroulé dans les prochains jours, également, nous attendons d'eux également sur le terrain que soit bien partagé pour que la mobilisation donc, des ressources et également la justice fiscale donc, soit une réalité donc, dans notre commune de Grand Yoff. Voilà, euh, damay remercier donc la commune de Grand Yoff di ko remercier parce que ñun Forum Civil n'est-ce pas ak commune de Grand Yoff ay partenaires lañ depuis euh, bi ñu fi nekkee bu ñu fi installé wu ba léegi ñu liggéey ak ñoom du ñu def dara loo xam ne boolewuñ ci commune commune de Grand Yoff n'est-ce pas moo tax ñu ñu ngi leen ci saluer et initiative bi tamit bi ñu jël dans le cadre également accompagner donc euh, état bi accompagner également la commune dans le recouvement n'est-ce pas, des, des, des, des taxes, n'est-ce pas, ce qu'on appelle donc les, les ressources domestiques, n'est-ce pas, lu am solo la parce que ku wax commune wax budget boo amulee budget bu doy commune bi du mën a dem mooy lii madame le wax sànq moo tax it euh, ñi nga xam ne ñu ngi ci biir comité bi dañoo représenté ci ay ay organisations yu bëri des commerçants n'est-ce pas les ASC donc les chefs de quartier dont le le représentant est ici présent donc monsieur Mokhtar Diop n'est-ce pas pour wane ni carrément ni comité bi donc yaatal na ba tax secteur bu nekk ci biir Grand Yoff dañ ci gis sa bopp mais li ko waral rek mooy informer les population sur importance su donc tax importance su impôt lan lay def ci gox bi lan la mën a def ci def ci gox bi te yaakaar naa ni bi nga xam ne mooy ñettalu session de formation atelier de formation bi ñu ko initié ba léegi am na am na njëriñ parce que tax na ba ñu ci bëri eh, ci incitation fiscale bi bàyyi nañ ci xel mais le Covid bi am na lu mu ci impacté ba tax euh, suñu activités yi mu xaw a tardé mais comme ni nga ko waxee sànq rek euh, ak euh, mbooloo mi ñu ñuy yaakaar ne plan d'action yi ñuy fi ñuy jëm dina dina mën a def de telle sorte que li ñuy objectif yi ñu fixé ñu mun ko atteindre maa ngi leen di jaajëfal. kon ñu ngi remercier le forum civil de nous avoir associés. au projet de renforcement de la justice fiscale au Sénégal. Effectivement, c'est la euh, troisième session bi nga xam ne la ñuy participer mais en fait comme kon que madame la maire waxee rek ñun euh, les délégués au moment de la réalisation des objectifs ñu ñoo nekk ci terrain bi pour pour ça donc suñu présence bi dafa si dafa dafa dafa symbolique mais c'est très importante donc nag ñu ngi. remercier di ñaan vraiment que cette affaire là puisse aboutir au bénéfice de tout la toute la population loolu la noonu la ko merci jërëjëf.